léegi lay doon euh, dañ koy tàmbali ak mbiru ma Madiambal ma jàmbal Diagne moom dafa bëggoon génn réew mi comme ni ngeen koy gisee noonu moom daa bëggoon dem euh, bitim réew maanaam dem Europe comme ni ko waxee waaye bu mu demee euh, ca aéroport international Blaise Diagne dañ ko daal di tere génn réew mi Euh, lu ko waral mooy ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu ne euh, dañoo jot ndigal ne moom ma Madiambal Diagne dafa euh, war a joxe benn passeport diplomatique bu mu yor donc mu nekk loo xam ne moom ma Madiambal Diagne ci boppam moo ko daal di xamle Euh, mbir mi nag nee na moom mosul am passeport diplomatique musul bëgg a am passeport diplomatique donc ci loolu la ñi nga xam ne ñoo fa nekk daal di xam le euh, ay ordre yu ñu jot la te mënuñu ko bàyyi mu génn réew mi donc loolu daal di ko metti moom Madiambal Diagne mu daal di euh, tasaare xibaar boobu ak taskatu xibaar yi donc mu nekk loo xam ne moom jàpp na ne mosul am passeport diplomatique kon waruñu ko teree génn réew mi ajara mm. muy mbir bu xaw a doy waar en tout cas je pense que bon moom nee na sax ci aéroport bi xool xool nañu mbir mi euh, waaye gisuñu benn yoon fu mu mës a amee passeport diplomatique fu mu mës a voyager également ak passeport diplomatique mm-hmm. mais dafa mel ni ñu fa nekk moom comme lu ñu wax ay ordre la ñu jot donc mënuñu ko bàyyi mu génn te ordre yi jugewul ci ku nekk ordre yi justement ci autorité yi la war a jugee parce que ku ñuy tere nga génn réew mi daa fekk nga euh, amal amal ak yoon euh, contentieux wala mm-hmm. nga war a régler problème ak yoon mm-hmm. donc je pense que le fait que ñu tere nit ki mu Euh, Sénégal te vraiment euh, argument yi taxu koo dëgër. Mhm. Euh, day andi benn vraiment confusion ak it est-ce que nguur gi walla autorité yi nga xamante ni ñoom ñooy jël yooyee ndogal est-ce que ñu ngi saytu bu baax a baax mhm. information walla bu ñuy jiin nit sax day fekk mu def ko bu nekkee deful nag. vraiment gisuma lu tax ñu war ko mën a texe mu génn réew mi te bari na si temps yi yëpp euh, ñu bëri ay autorités yu bëri wala mën naa bañ a wax sax ay autorité mais ay nit yoo xamante ni amoon nañ fi ay nombal tànk ay nit ñu xam ak yooyu noonu ku nekk boo demee aéroport rek ñu ne la doo fi génn sans euh, xam exactement euh, lan la ñu def loolu mm. donc man je pense que fi mu nekk ni ku képp ku ñuy teree réew mi rek nga génn fi nit ki nga xamante ni moom la concerné dafa war a rek jot Euh, message wala lettre boo xamante ni dina di nga yëg ni sax ni ko yow mënoo génn mhm. réew mi bu ko defee euh, ngir régler problème bi te benn coow lu ci am mhm. donc c'est regrettable en tout cas euh, te moom wax na ne Euh, mosul mosul am passeport gars yi aussi xool nañ ne mosuñu benn yoon fu mu mos amee passeport diplomatique Madiambal Diagne mhm. je pense que loolu rek doyoon preuve pour ñu bàyyi ko aussi mu mhm. voyager comme dafa am ay na ko bañ donc man je pense juste que ni euh, defin bi vraiment euh, mhm. rafetul daal man si sama gis-gis defin bi rafetul naam sax si defar la ñu jëm te lu bëri bëgg nañ mu changer si réew mi parce que c'est vrai que ñu bëri ñu ngi yoroon ay ay passeport diplomatique yoo xamante ni leen mayu leen pour ñu am ko lu dul ay da ko war delloo aussi donc euh, bu nekkee yorul te deful tamit euh, je ne vois pas pourquoi euh, ñu war ko mën a tere mu def ay activités mais je même am na benn aussi mhm. homme d'affaires bëgguma tudd ay turam fii moom aussi tere woon nañ ko génn réew mi te xamul lu mu def ba dafa mujjee bind si X ni mooy ancien Twitter mhm. nii moom comprendre lu tax mu am acharnement bi si si si ndoddam mhm. te comprendre donc man je pense que vraiment nit ñi ñuy tere ñu génn réew mi bala ñu jël seen ay billets di def ay rendez-vous ak lu ni mel. Mm. Euh, ñu notifier leen rek ni am na lu lu xew lu tax lu mun ñu génn réew mi. Mm-hmm. donc c'est vraiment regrettable j'espère que peut-être que moom Madiambal connaissance. comme dafa fës fësal léegi dafa dugg ci politique mu ngi ci liste Amadou Ba aussi bon est-ce que c'est pas de la bonne guerre aussi. xam nga démb moom lañ fi doon waxtaanee ñu koy mm. bañ. Mm. mbir mi rax na rax na. politique politique mm. wala ay calcul wala pas calcul sax mais ay vengeance daal ay mm. mbirum vengeance man sama gis-gis la loolu laa gis am na lu ko lal mais mm. bon peut-être que aussi mm-hmm. euh, du loolu mais bon bu ñu gisee succession événement yi tamit kenn mënu ko interpréter neneen mm-hmm. lu dul am na lenn loo xamante ni mu ngi ci suuf te peut-être que d'ici si kanam dinañ ko dinañ ko xam waaw c'est vrai en tout cas euh, ñoo ngi euh, toppandi xibaar boobu ba xam fu muy mujjee daal Madiambal Diagne comme ni ñu leen ko waxee mbirum passeport diplomatique lañ koy laaj mais nee na moom yoru ko mosu ko am en tout cas lu ci ti nekk moom euh, ñi fa nekk ñoom ñu ne ndigal la ñu jot ngir euh, tere ko mu génn réew mi moom ma jàmbal Diagne euh, jamono bi loolu la daal di xamle démb bëggoon génn réew mi mais finalement mu mujjul génn réew mi daal di partager xibaar boobu ak taskatu xibaar yi. ba tey dañuy wéy ci wàllu information également actualité politique xam ngeen ne ak démb ajara daanaka ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppoon muy le journaliste Cheikh Yérim Seck Kader Dia chroniqueur Sen TV Bougane Gueye Dany donc. mu am libération quand même euh, benn instant comme ni ñu doon waxee y avait eu mais dañoo jékki-jékki ñoom ñëpp ñu bàyyi leen en tout cas muy euh, loo xam ne aussi euh, vraiment ñu bëri rafetlu nañ ko mm-hmm. pour un peu apaiser quand la tension bi nga xam ne daf fi naroon am ci jamono yii nii. Mm-hmm. muy souplesse boo xamante ni tey jàpp nañu que ni foofu la ñuy xaar autorité yi ba ci jàmbaarloo bu sans fin yoo xamante ni dañuy xëy su bëggoon jot di si wax. Mm-hmm. te du am avancement. tey lu dëgër loo xamante ni moom war nga ko mën a sax toppee nit ki. mu nekk jafe-jafe peut-être. donc euh, maître di paralyser également journée nit yi ñi ñu war a liggéey fii am ay euh, convocation fi nit ñi boo dem xam nga mhm. euh, réew day toll foo xamante ni dañu war a euh, peut-être dépasser yenn yenn yenn stade yi nii mhm. tey foo gisee Sénégal fu mu jugee ñu jugee ci ay vraiment année yu méttee méttee mhm. yoo xamante ni ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan lépp ci wàllum politique tey dañu war taxawee vraiment taxawaay bii nii tey kuñ ci woo gis ne ni lay woowee peut-être que c'est pas aussi fort wala poids amul pois clairement pour que ñu mën la jàpp ci mm-hmm. mbir boo xam ne ñu ngi la koy jiñ ak yooyu ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër mm-hmm. donc lu ñu rafetlu la c'est une bonne chose boo xamante ni gouvernement peut-être que ba tudd nañ xalaat yaa euh, waxtaan ak seen njege naay peut-être que mm-hmm. euh, ñu yaakaar ni rek ni war nañ leen bàyyi ñu ñu dem seen ay kër gis nañ dem également société civile bi nu mu nu mu nu mu nu mu taxawee ci mbir mi euh, ba si suñu journal bi sax tu as vu les réactions de Sidi Gassama RSF mhm. euh, donc ñoom ñëpp gis nañ ne que ni ci même si kaaw Yérim Seck gis ñu lu tax ñu war ko mën a téye lu dul euh, ci yoonam la nekkoon ci rôle journaliste ba léegi mhm. la nekkoon Mhm. lu am solo la en tout cas je pense que euh, loolu moo tax sax ñi nga xam ne ñooy euh, waa Y'en a en tout cas am na ñu jàpp ne Y'en a marre euh, teel na bon am na ñu jàpp ne réew mi fa toll en tout cas ñoom démb amal nañu conférence de presse ngir wax ci situation réew mi Y'en a marre même je pense que kenn dootu leen présenter ci réew mi xam nañ taxawaay bi ñu doon am depuis Wade ba tey jii nii ñoom démb génn nañu am ko amal conférence de presse am ay kaddu yu ñu yëkkati dénk ko ñi nga xam ne ñoo fi toog dañuy déglu ki yoroo seen kaddu Abdou di Thiat euh, bokkoo ci boobule kuréel euh, ñëwaat léegi ci plateau te ñoom ñoo la ko gën a xam ce régime en face ñoo la gën a xam ne ñun on restera sur les principes fëkk yóbbuwuñu et que on sera là on restera les vigiles de cette démocratie on veillera sur notre démocratie kenn du ko salfaañe kenn personne personne laa wax du salfaañe suñu démocratie on sera là et que loolu il faut mu clair donc gars yi waxtaan bi loolu la woon am nañ naqar lool mais alhamdulilah tout est bien qui finit bien on espère que dinañu jël les leçons de cette décision impopulaire bi ñu jëloon que d'arrêter les gens à tout bout de champ pour des lois liberticides yoo xam ne ñu ak ñoom dañ ko bokk di ko combattre barki démb kon loolu nañ ci bàyyi xel ñu jublu ci urgence su sénégalais yi ci urgence su sénégalais yi nag ñëpp a ciy dawal compréhension sénégalais boo gis fépp a ngi métti ku nekk sonn nga mais ku nekk xam nga ne juróom-benn weer quand même munoo cee critiquer yenn critiques yi nguur ñëpp xam nañ ko il faut il faut être raisonnable ku koy xaar ci ñun doo ko gis parce que on est raisonnable on est raisonnable mais on est patient notre patience nag lenn moo ko mën a yàq mooy des des questions de liberté ça on l'acceptera pas parce que les questions de liberté aussi bien que les lois soient là et restent et demeurent Bassirou Diomaye sa son premier discours il a parlé de lanceur d'alerte que ma ciy def une sax une loi nit ñi am yaakaar ne c'est un autre pas vers les libertés def assise de la justice ñu jox ko rapport nit ñi amaat beneen yaakaar kon su nekkee ne ay loi la yu ñu war a voté nañ ca gaaw su nekkee ne ay changement la yoo xam ne dëkk rek moo koy def nañ ca gaaw waaye justice bi dañ ko war a coppi justice aux commandes du pouvoir dafa war a jeex ci réew mi dafa war a jeex ci réew mi ah voilà loolu moom mooy dëgg bi maintenant ngeen liggéey quoi liggéey leen dañ leen sant ngeen liggéey waxuñu ne ngeen jàpp ay nit à tout bout de champ liggéey leen l'heure est grave les sénégalais fatigués loolu mooy dëgg bi voilà et et que beneen bi moo buggoon wax mooy nañu nañu bàyyante xel ñun Sénégal ñoo ko bokk suñu réew na ñu bàyyi di defante yu ñaaw di waxante yu ñaaw ça ne nous avance à rien TikTok c'est un moyen qui permet aux Chinois de développer ay intelligence mais ñun on l'utilise pour yàq ay doomu aadama c'est pas normal et je dis à tous ces gens là qui prennent la parole dans l' espace xool leen li ngeen di wax seet leen li ngeen di wax seetantal leen ko nit sa caméra di wax lu la neex ci deru jàmbur c' est comme ça c' est pas ñu xoolaat suñu taxawaay moo xam chroniqueur nga moo xam rappeur nga nañu bàyyi di wax loo xam ne du dëgg te teguñ ko fenn parce que nag ku fi tooñ loi dalay teg dalay dalay daan c' est ça la la loi elle est là elle la loi est là mmh. mu noonu mu nekkoon ay kaddu euh, kilif euh, chat. maa ngi wax kilifa parce que <laughs> koo xam caat xam kilifa euh, caat moo doon yëkkati kàddu yooyu donc ci conférence de presse Y'en bu ñu doon amal je pense que Adjara wax na ci lu am solo mm. mooy d'abord ku nekk li ngay yëkkati ci kàddu mun nga xalaat ci sa responsabilité mm. euh, loolu moom euh, moo waral sax ñenn ñi peut-être ñu convoqué leen ku mel ne Kader même Bougane ci kàddu yu ñu doon yëkkati en tout cas je pense que Y'en a marre nan nga gisee seen position cette sortie là également euh, ñi nga xam ne ñoo fi toog euh, ñu bañ a dundaat li nga xam ne dundoon nañ ko à l'époque man je pense que c'est une position euh, complètement légitime parce que euh, lan lañu wax a comprendre jamono ji Sénégal mooy li fi amoon yaakaar moom mu teel fee amaat c'est-à-dire bàyyi nguur muy doxal ay année ay année ay année ba moom mm-hmm. loolu Sénégal je pense que dootuñ erreur boobu dootuñ ko reproduire donc je pense que mm-hmm. seen sortie boobu c'est juste pour dire que on est là on vous tient te li mu wax c'est complètement équilibré mhm. euh, soo koy déglu parce que wax na ci li nga xamante ni moom mooy euh, restriction wu liberté yi Euh, ak lépp loo xamante ni moom mooy xoqatal doomu aadama te loolu seen seen champ de de combat la. Mhm. Euh, ñoom tout le temps dañ doon wax ni que ni euh, lépp loo xamante ni moom mooy xoqatal doomu aadama. Mhm. tere ko mu exprimer wu ne ak ak yelleef doomu aadama loolu yëpp dafa nekk seen ay combat te je pense que loolu la daal day wax ni que ni jamono ji dañ ko war a gën a préserver voter loi yi wax na dëgg dañoo war a voter loi yi gis nga réew boo ko bëggee changer. Mhm. ay loi ak ay décret ñoo koy changer. pas gouvernement. boo xamante ni day woo police ne leen jàppal ma kii ak yooyu noonu yooyu moom xam naa ne war nañ ko mën a mais mm-hmm. maintenant il a été aussi très très équilibré sur le sur euh, sa déclaration de parce que responsabilité les hommes les politiques voilà mm-hmm. wax na ci homme politique yi mm-hmm. wax na ci ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy euh, société civile bi seen seen rôle je pense que bu ñu gën a xuus sax dinañ ko comprendre euh, wax na également ci taxawinu askan wi par rapport à ces des informations tey ñu bëri ñu ngi wax ni Sénégal daal dañu war a euh, arrêter euh, li nga xamante ni moom mooy euh, utilisation abusive abusive laay wax sax réseaux sociaux yi mhm. donc loolu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni mhm. tey c'est vrai que génne nañ ngaa ñi gouvernement mais yemuñu ci mhm. en plus euh, côté bi nga xamante ni moom moom laa bëggoon sax euh, parce que yaa ngi wax léegi naan kilifa. Mhm. man ces configuration euh, conférence de presse bi déjà dama doon war kilifa. Mhm. parce que foogoon naa ni aussi peut-être que seen ay engagement yu wees mhm. moo moo ko teree teew fa nga xamante ni moom mooy ca conférence de presse bi ñu xamee ko comme ah, benn figure boo xamante ni marqué na bu baax Y'en mais également da lay wan léegi enjeu bi ñu nekk. Mhm. c'est-à-dire situation réew mi dafa changer depuis gouvernement bu bees bi mu amee configuration yu bees dafa am. Mhm. tey Y'en lu mu meloon ay années. je ne pense pas que dina melaat comme nu mu meloon. Mhm. dina amaat ay configuration yu bees donc il faut qu'on tienne en compte aussi mën na bañ a am sax ay. Euh, divergence d'opinion mais ku nekk da nga nekk di liggéey sa waar yow fi nga yaakaar ni foofu nga gën a mën a efficace mhm. pour euh, taxawal sénégalais yi donc euh, franchement man je damay rafetlu seen génn bi mhm. parce que c'est vrai que opposition kii bi nu mu tuddee ci régime Ousmane Sonko ak Diomaye mhm. laa gis ni opposition bu gën a teel ci Sénégal ñoom dañoo teel a am ay opposition xam naa dana nar a metti nag moom vraiment six mois nga amee autant d'opposants mais parce que day nekk ay traumatisme yoo xamante ne Sénégal daf ko am mhm. génn ci ci ci régime bi bi jàll donc nañ leen ko nangu c'est-à-dire lu ñu baal lu ñu mayul Macky Sall duñ ko may duñ ko euh, may Diomaye ak Sonko c'est ça vraiment moo tax peut yenn génn bëri en fait aussi c'est ça parce que souvent dañ leen di delloo ci seen ay kàddu mhm. mhm. c'est ça di leen rappeler dafa baax ci réewu démocratique lañ nekk lii bu amul woon je pense que euh, dina dina dina nekk loo xamante ni dina jaaxal ñu bëri. parce que fi ñu jógee la te lu lii dañ ko yàgg a wax. ku fi ñëw tamit boo fi toogee dinañ la laaj ay compte dinañ dugg si sa gestion dinañ ci wax. Mhm. maintenant nag wax ndax dalay yóbbu prison. Mhm. loolu mooy grande interrogation bi. waaw nit waratul wax quand xalaatam muy dem prison. je mm. pense que loolu moom war nañ ci war nañ ci weesu ajara am na solo bu baax par rapport ak li nga xam ne mooy la sortie de Y'en a marre ñoom itam euh, ñoo ngi artu ñëwaat ci li nga xam ne mooy arrestation yi fi amoon donc tout ça mais bon comme lu ñuy wax espérons que vraiment lu ñu dundoon duñ fi dundaate effectivement ajara wax nga lu am solo. Mm-hmm. Euh, changement dafay ànd ak loi ak ay loolu yëpp il daal di am d' abord mais su mm-hmm. fekkee lu fi nekkoon rek moo fi nekk euh, changement boobu du gaaw et je pense aujourd'hui pour la rupture mm-hmm. te rupture boobu dañ ci war a dem ba mu jeex nga xam ne changement bu ñu doon wër dinañ ko def te génération yi di ñëw aussi dinañ ci bénéficier wu ba nit mun a toog Sénégal wax xalaatam mm-hmm. fekk duñ ko jàpp ngir euh, li nga xam ne moo jëm ci euh, délit d'opinion ba tey dañuy wéy ah, ci wàllu xibaar yi démb xam ngeen ne également ki nga xam ne mooy euh, Bougane Gueye Dany moom itam mooy leader gëm sa bopp biñ ko convoqué demoon na ñu téye woon ko waaye finalement mujj nañ ko bàyyi dossier classé sans suite moom Bougane Gueye mu génnee nag am na ay yu mu yëkkati daal di réitérer ay Euh, yoo xam ne moom la tëniroon jëm ci propos yi nga xam ne ministre euh, premier ministre yëkkati woon na ko moom mu ne euh, génn daw ci yota donc mu ngi ci gën a dëgëralaat boppam ñëwaat na ci li nga xam ne moom la dund bu mu demee foofu fi nga xam ne mooy cybercriminalité moom Bougane Gueye Dany moom la ñuy déglu ay kàddoom ñëwaat commenté avec Adjara ñu ne ma dafa am ay kàddu yoo yëkkati ci conférence de press premier ministre yëkkati ay chiffres wax ko nga ne chiffres yi du dëgg ndax dangay dëggal kàddu yooyu ma ne leen ca sama conférence de presse tontu naa président parti PASTEF président parti PASTEF nee na données économiques. ak budgétaire yi Sénégal di jëfandikoo ci at yu bari dañ cee roof njublag man ma delluwaat wax usmaan Sonko ne ko li nga wax waxoo dëgg ay kàcca ma yëkkati ay kàddu la ma waxoon lañu ma doon laaj teggiwuma ci virgule lépp lu nga xam ne maa ko waxoon ci conférence de presse bi fii ma waxaat leen ko ñu dégg ko lépp lu ma yëkkati woon ci kàddu ci conférence de presse bi fii man Bougane je l'assume je l'ai assumé et gis naa ci biir presse bi ay wàll yu ngeen bind ci biir audition bi amu ci lenn loo xam ne man Bougane yox yoxi naa ci wala ma dellu ci ginnaaw amul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 mais gars yi dañu yaakaaroon ne bi may ñëw damay ñëw ak loxoy nen ma génneel leen rapport yi tegal leen ne leen rapport yii moo weddi Ousmane Sonko mu ngi noonu Bougane Gueye Dany leader gëm sa bopp moo doon yëkkati ay kàddu démb ñëwaat eh, ci li nga xam ne moom lañ ko doon doyee ak yi nga xam ne wax na ko eh, moom nee na daal dellu ci ginnaaw ajara Euh, Bougane dafa mel ni moom mm, ba tey euh, combat ak Ousmane Sonko daal moo ko neex maam mu ngi gën a tiré ci usmaan Sonko di gën a wax ne daal dellu ci ginnaaw li Ousmane Sonko amul euh, na nga jàngatee ci li nga xam ne moom la nekk di def jamono bii nii. naa ne de may nañ ko vraiment visibilité boo xam ne. Hmm. ji man Bougane da daan wax wax bi day dañuy wax muy mu. day wax day wax da doon wax muy romb waaw <laughs> mais depuis cette arrestation là. Hmm. comment l'interpréter c'est bien euh, c'est même bien avant mu ngi doon occuper terrain politique bi def ay conférence de presse non mais même euh, là hier ñu libéré ko rek mu ñëwaat encore conférence de presse c'est-à-dire que mu ngi am na lu muy commencé di ñemee léegi mu ngi ñemee combat bi li ñuy wax mm. mu ngi ñemee presse bi gis na presse bi léegi ñëpp bu wootee ñëpp daw ñëw mm-hmm. euh, donc il y a quelque chose qui se joue actuellement mm-hmm. tey bu gisee ay jéegoom yëpp gis nga bi muy dem di njëkk Ousmane Sonko wala le président Bassirou Diomaye ci affaire euh, immigration clandestine mais fële Mbour. Mhm. gis nga kàddu yom fa yëkkati. Mhm. Euh, di wax rek ni gouvernement bi nekkuñu di occuper aussi préoccupation sénégalais yeeg yooyu mhm. noonu dem massawu. famille yi donc am na lu muy wut. te ñëpp xam nañ ko. maintenant ci wutin bi euh, y a des choses aussi il faut pas l'oublier c'est que opposer mën nga opposer mais. li fi amoon manque de respect bi. diffamation yooyu noonu bu ñu la si jàppee te moom dafa dafa mel ne moom ci loolu lay basé wu. ay day fen ay day wax lii c'est-à-dire que c'est est-ce qu'on a besoin de rafet man hmm. ma kàddu. c'est euh, hmm. franchement parce que nit mën nga wax. Hmm. vraiment mais pas nga utiliser même. même même xët-xët même style Ousmane Sonko. muy Sonko d'une manière boo xamante ni peut-être que nekkul yow. Mm-hmm. man su doon man maay Bougane je vais être plus moi-même. Mm-hmm. bu nekkee bu nekkee moom rek. Mm-hmm. si sama gis-gis. dina peut-être am lu muy lu muy wut mais bu ñu koy comparer rek gis nga ne bu ñu lay comparer ak keneen xamal ni liggéey def y a quelque chose qui va pas. nit da ngay nekk yow li nga doon. continuer. si sa ligne directive. Mhm. nit ñi mën la si fekk bugaan xam nga lii daan na wax mi daanu waxee nii. Mhm. waxin bii dafa dafa bees. Mhm. moo tax nag waxin bu bees bi moo tax ñëpp jox ko léegi di ko déglu ak yooyu parce que ku nekk booy déglu sax mhm. da ngay xaar fu muy waxee benn affaire boo xamante ni xale yi dinañ ko mën dagal dagg dugal ko ci TikTok bi c'est c'est de bonne guerre c'est vrai mhm. que on est dans un combat de communication mhm. mais vraiment en tant que quelqu'un patron de presse aussi on va le dire euh, di représenter quelque chose donc je pense que oui li muy def am na si droit vraiment mais moom tout le temps tout le temps dafay wax ne li Ousmane Sonko doon def moo leen won yoon bi donc moom jàpp ne ni Ousmane Sonko doon opposé wu ak Macky Sall moom noonu la war a opposé wu ak Ousmane Sonko mais euh, problème mooy les Sénégalais sont là est-ce que Bougane aussi euh, warul xoolaat taxawaayam un peu parce que même kaddu yi man c'est souvent ce que je dis boo nekkee leader politique nekk un opposant euh, boo buggee marqué aujourd'hui sa sa empreinte si si bi quand même dafa am nooy ñëwee parce que yaa ngi ko doon wax sànq aujourd'hui Ousmane Sonko nu mu doon moom noonu rek la mënoon opposé en fait c'est à dire que Sonko ak Macky c'était comme ça mais Bougane Gueye Dany ak Sonko je ne pense pas que c'est la manière aujourd'hui bi Bougane war a utiliser pour pour opposer wu contre Ousmane Sonko. il a été bon si si mes informations sont bonnes mm-hmm. j'ai cru voir mm-hmm. euh, que dafa génne téere livre euh, mm-hmm. ci di di wax ci ay affaires donc dinaa ko gën a saytu pour xool clairement euh, qu'est-ce qu'il veut dire gis nga man sama genre yi si Euh, nga ngay génne ay ay ay ay preuves tangibles euh, tu parles avec des gens sama genre yi ngay waxal parce que ñooñu dinañ dem wuti information bi. Mm-hmm. mais si tu veux avoir ce combat populaire. des réseaux sociaux foofu lañ koy xaar foofu lañ koy xaar bien sûr loolu laa lay nga loolu c'est une bonne et c'est à féliciter vraiment. Mm-hmm. téere boobu na ñëw téere boobu noonu na ko gën a yaatal. Mm-hmm. expliquer Sénégalais yi la la si bëgg wax. boobu. c'est de bonne guerre je trouve. Mm -hmm. maintenant bu fekkee da nga bëgg gagner un combat médiatique par les réseaux sociaux. par les TikTok. par euh, ñu jàppale nga génn def conférence de presse. en plus j'ai même cru voir un chanteur bien connu mu ñëw soutenir ko c'est très bien mais c'est vraiment dans le show. waaw ñëw na ko ah, soutenir sa conférence de presse ba démb waaw waaw gis naa gis naa waaw moment émouvant bon on l'a suivi hein moment bu émouvant et tout c'est bien c'est bien mais euh, est-ce war na war na dem ci ci yooyu loolu moom franchement aw si gis-gis parce que hmm. ku nekk hmm. yaa xam lan moo la motiver ngay dem ah de la politique aussi est-ce qu'on a est l'engagement d'un chanteur aussi bon moom moo fa dem aussi mais man daal xam naa ne chanteur quand ils veulent voilà, prendre des positions da nga jàpp mbiru famille la daal. non mais man en fait sincèrement j'ai j'ai pas de de, de j'ai pas d'idée en fait j'ai même pas de pensée. Mm -hmm. par rapport à ça on ma ci. sa présence yow. Oh, euh, jàppoon non non vraiment c'est normal c'est normal c'est un citoyen sénégalais qui mhm. vient soutenir un autre citoyen sénégalais c'est de bonne guerre hein. Mm -hmm. franchement man dama koy xool mhm. ba si ay Europe États-Unis les chanteurs euh, les artistes ils sont engagés wala dañuy. far mhm. carrément ñu gis ni dañu far mhm. donc man neutralité artiste franchement c'est quelque chose que je ne je conçois pas parce que bokkul ñu leen tënk mhm. ay nit yu libre lañ war nañ def la leen neex man je reviens sur la forme de de cette communication de Bougane de Bougane forme bi ñun on n'est pas des experts en communication mais yàlla may nañu tuuti si ñu jàng xam lan mooy communication également ci li ñuy liggéey Bougane su bëggee vraiment am li muy wut forme de communication bi. faut mu changer ko Eh, bon da nga jàpp nu muy dama jàpp ni <laughs> forme de communication bi sa n'attire pas. Mhm. ay ay ay ay ay. les sénégalais yu ñaaw boo ko tegee si deru nit. Mhm. sénégalais mën na déglu mais mhm. da dem commenter reetaan ko. mu jeex sa communication say. donc du loo xamante ni day rester. franchement euh, ñu ngi dem ci ay élections législatives je pense que euh, am na contentieux ak justice réglé na ko. léegi liggéey bi na tàmbali léegi. na na na wal sénégalais yi fan la mënee nañ def seen ay coalition mhm. nañ liggéey quoi c'est ce que je veux dire mhm. mais lii moom sincèrement te en plus Adjara gis lu si muy muy buggaan muy tant d'autres opposants gis nga euh, dama am ko ma ko doon wax démb ma ne ko euh, Ousmane Sonko quand il est arrivé euh, ci landerneau politique bi à l'époque là où je fréquentais les Sadikh Top ñu bëri si ñoom mais dafa indi téere boobu nga wax solution mu ne voilà ce que je propose aux Sénégalais il a fait benn cérémonie tout ça wone tey Bougane man pour man fenn rek la mën a amee lu mu soxla mooy que tey mu wax ak euh, sénégalais yi ci ci débat d'idées indi comme li nga wax sànq bu fekkee dafay dem ci bind téere mhm. ñu indi xam-xam bu premier ministre waxee dara pas pas di ko di ko jéem a kii euh, di ko wax yenn wax yu ñaaw yi mais nga indi ko ci débat parce que Ousmane Sonko lancé na ko fii mais gars yi bàyyi ñu ci xel mooy jour bu muy taseek euh, artistes yi fii ni primature wax na ko gars yi mu ne leen man pare naa pour débat Euh, d'idée débat public ci wàllu pétrole ci wàllu gaz ak yeneen nu ñu mel euh, gis naa aussi Ngagne Demba Touré daal di ko wax ne Bougane mm. kaay ñu débat c'est-à-dire que moi je rêve d'un Sénégal où aujourd'hui même su ma toogul ci plateau di présenter wala di di chroniquer mais que ma toog sama kër mm. que je vois aujourd'hui nos hommes politiques dañuy dem ci débat yooyu nga xam ne dañ ko amoon à l'époque mu ñëwaat ci ci ci suñu ay plateau parce que aussi gars yi ni ñu wax dëgg gis nga gaal gi ñun ñëpp ci nekk aujourd'hui ñi nga xam ne ñoo fi toog nekk ci nguur gi il faut aussi ñu am ay opposants yu responsables mm-hmm. parce da ngay gis ne bu fekkee amoo opposant bu responsable rek souvent dérive yi dafay bëri et je pense que muy Bougane muy tant d'autres aussi ñi nga xam ne ñoo fa nekk aujourd'hui quand on voit Pape Djibril à ses côtés mm. Abdou Mbow nga xam ne c'est de la politique c'est de la politique politicienne mais du loo xam ne nit ñi dañoo am gëm-gëm te gars tey lu ci gën a mooy lu ñu doon wax démb ak lu ñuy wax tey ak wuute te ça aussi on doit revoir le comportement aujourd'hui mm-hmm. la ñuy doxee ci wàllu politique politicien moom vraiment un homme politique on va dire euh, xoolul lu dul intérêt tey coalition yi ngay gis nii yëpp comme ni ñu koy woowee coalition contre nature lañ ko mën a jàppee parce que y a même pas six mois la ñuy wax sax la ñuy yor y même pas sept mois huit mois fii ñoom ñëpp ils étaient de l'autre côté côté Ousmane Sonko lañ nekkoon di ko xeexal di ko guddal di ko bëccëg mhm. maintenant nguur bu yegg si nag ku nekk yaay jël say responsabilité am na ñoo xamante ni ñu jëloon ay choix. Mhm. yu assumé nekk si niñ si nekk ba léegi. Mhm. tey bu APR contre euh, euh, Pastef. Mhm. dañ naan bon yàgg nañ yàgg nañ nekk ay euh, si opposition bi ñoom yàgg nañ xeex bu gisee beneen parti ñëw adhéré si APR alors que yow yaa ngi doon défendre ay idées Ousmane Sonko. day nekk benn pëcc xoo xamante ni sénégalais yi même. dañuy dañuy lii mën na leen sa porter préjudice xamuñu ko. effectivement nañu xool daal dañ naan ñii xamuñu lu ñu bëgg. te ñii waa waa Pastef ñoo gën a xam peut être ñoom dañoo sax leeral mbir mi dañ ne ñoom àndatuñoo kenn ku si bëgg ku bëgg ànd ak ñoom na mm-hmm. nga ñëw te même si àndin bi sax dañuy tànn mm-hmm. ñii ñu ngi ànd ànd boo xamante ne àndu liste la ak ànd nekk ay député hmm. donc il faut vraiment que ñu intérêt askan wi moo leen gën a gis nga maanaam la lecture bi ci askan wi am hmm. ñun ñi toog fii sax amuñu ko hmm. da ngay gis ñoo xamante ni dañuy dañuy toog wax la loo xamante ni te gis nañ ko quelque temps après nga gis ni dëgg la donc sénégalais yi dofuñu effectivement tey jii boo duggee ci taxi yi ci transport en commun yi les sénégalais ils sont très bien informés gis nga même étranger dañ la koy bu ñëwee Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ni dañoo jàpp ni que ni ni ñu conscient wee mm-hmm. ci euh, li nga xamante ni mooy information tey ji ku nekk mën na la wax parti politique bi lii moo ko sanc lii moo ko lii dina la expliquer loo xamante ni mm-hmm. ci ay nit yoo xamante ni peut-être même ñu si gën a bëri jànguñu mm-hmm. donc réew moom boo ci nekkee manipulation bi moom je pense que amatul lu solo la Ajara am na en tout cas loolu la ñuy ñaan ci Sénégal bi espérons que loolu yëpp dina dina changer euh, maa ngi ñëwaat ci yow damay dem xool li journaux yi xëyee tey mhm. euh, dëkkal ki ñi nga xam ne ñooy suñu ay téléspectateurs dem xool li nga xam ne moom la yéeni kaay xëyee tey ji également euh, ñëwaat ci plateau bi xam ngeen ne suñu gan wax naa ko Pape Abdoulaye Touré la moom dafa bëgg nag dafa bëggoon bokk ci élection législative yi xam naa ne koppoor gi xaw ma fu mu toll ci moom en tout cas Pape Abdoulaye ngi ci yoon bi dafa xaw a waxoon na moom mu ngi côté Colobane dina agsi léegi ci kanam tuuti suñu gan ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom la bëgg a def mooy doon candidat dem fi nga xam ne mooy assemblée nationale moom nee na candidat étudiant yi la ak jeunesse bi la dafa jot donc euh, moom dinañ waxtaan ak moom ci kanam tuuti euh, balaa boobu dañuy dem yër li nga xam ne moom la yéene kay xëye tey jii ci vendredi bi